Serigne Touba jërëjëfati Serigne Bamba ñaan nga nangu na ndox maa ngay walangaan ca tuba taw feex ñaan nga nangu na ndox maa ngay walangaan ca teenu Maam Cheikh Touba Mboussobé tuba ca kanam ci def yitte ci quartier yu bari te fasantiko ci dëkk bu sell bi di Touba mbokk yi te amuñu ndox ñii toog nañ fukki ñii toog nañ ñaar fukki at mbokk yi waaye saa suñu xëyee soxna yi yanu seeni bagaan ngir lan di wuti ndox tey jii seeni ñaar téeméer tax na ndox maa ngi ngaan ca Touba Tawfeex juróom-ñaari téeméeri mètre lañu gas tuyau 90 génne leen ñeenti robine mbedd ngir lan ñi nga xam ne seen kàttan sax mayu leen ñu ñoddi ndox mi dugal ko ci seeni biir kër mbokk yi ñaar fukki at ñu ngi ci dëkk bi di seen ndox mi di ko dégg te mun nañ cee jot bu ñu naanee mbaa ñu sangu soxna yu jàmbaar yi ñu yanu seeni bagaan dem rooti loolu nag ak seen ñaar téeméer yi ca kanam dakkal na ko ca Touba feex yàlla dogal na nag ñu gis euh, koñ bi nii mu demee nga xam ne aw mar moom yàgg na fi daanaka ñaar fukki at depuis ñu sance koñ bi ak léegi ñi ngi mar te xamuñu fenn fu ñu ko jooytoo ma concentré bu benn yoon sama néeg ma ne man daal danaa dem ci Touba ca kanam. ndax dégg seen jëf joo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi muy jëf ju am solo di leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bi ma defee demande bi itam yàlla dogal ñu nangu demande boobu ba tey jii gis nga ko lépp ñëw na macha allah mboolem lu ñu sàkk woon ci ñoom rek defal nañ ñu ko tey suñu xol sedd na guy. liggéey bi de ni ma gisee mooy liggéey la bopp kawe na njort ndax képp koo xamante ni bii yaa ngi yëngu ci Touba gii gis li waa Touba ci kanam di liggéey nga xam ne ñooñu seen liggéey am na solo. liggéey bi moom dafa am solo lool lool lool lool ndax dafa yëmu ci lii seen liggéey dafa dafa dafa dafa ndar képp Touba gépp ci lépp la ñuy yëngu ñu ngi ko teg suñu bët. li defal nag réer na ci ñun ndax bari na benn teew jaaruf ñu bari amuñu robinet fii yëpp kenn ku am robinet daanaka néew fi ñii ñii ligne bi yëpp kon bu fi teew jaaree tey dimbali na ñooñu kon ñun ñu ngi sant Touba a kanam ndax fàttewuñu waa Télé Mans Cheikh da xam nañ ko kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen boobaa léegi daggal na ci loo xam ne macha allah tabaarkalla waaye liggéey si doomam doo ci gis sa bopp tabaarkalla macha allah bañ ma ko indiloo ba léegi daal amul ñu ci yokk yoon amul ci arrière bu jeex mooy yóbbu bare ma sayet yóbbu Touba ca kanam tellement cher même boo dee digg Ucab FM sax di nga di ko dégg saa su ne moo def moom laay présenté moom ndax moom laa moom laay dudd ci laa fas yéene ba faatu dégg ci bu sooyee borom daa ko doon nga yaakaar wa tuxrina ولا تكن مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سمان وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاعة بجايس اليوم وجاع من ونيت في عبر ما مثله ولم نجيد محمد الأفضل خلق الله ñoo ngi leen di dalal fii ci koñ bii ñuy wax Touba Tawfiq ci tuuru jëwrin ji nga xam ne mooy Baye Assane Ngom ak Oustaz Faye ak Serigne Modou Faye ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci koñ bi fas yéene nag feeñal seen mbégte ak seen taxawaay ci lii nga xam ne mooy Touba ca kanam waaye sëriñ bi ñoom ñu doon mbooloo moo xam ne keroog bi yàlla dogalee nga am ndigal ci say kilifa ba woote woote bu rëy boobu di wax ne képp koo xam ne ñoo bokk pas-pas ci sëriñ bi bokk yëg-yëg ci sëriñ bi maa ngi lay tàllal loxo di la woo ci liggéey bi nuy wax Tuubaa ca kanam keroog ba loolu toqee ci seenub nopp lañ gëj a am sago ludul ñëw jàpp ci liggéey bi ci taxawaay ak di yëkkati seenu ñaq di ci def ngir woote boobu te ñu xam ne nanga ko wootee woote bu ànd ak pastéef la ak yëg sëriñ bi quartier bii nag ñaar fukki at a ngi nii ñuy daw ci lii waaye benn tiwo musu fee ñëw am na ci ñoo xam ne sax ëpp nañ ñaar fukki at ci dëkk bi rahmatullahi alayhi sa jur wa Cheikh Abdoul Ahad ba mu wootee wooteem bu rëy ba ca 88 ne kenn ku ci ne sa pujub néeg mooy doon sa seere ëllëg yowmal xiyaam booba lañ bàyyi seeni kilomètres yi maam ak seen kilomètres yi bàyyi ñëw fii bëggoon fi vingt mètres carrés yoo xam ne ci lañ mën a dëkk ñii abbu nañ kër dëkk fi ñii luye nañ dëkk fi ñi ci des liñ daa wax tëb dal ba tey lii fekk leen fi xéewal gii ngeen leen bettee yal na leen ko sëriñ Touba bettee. sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu mu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di leen ñaanal yàlla mu doon ñu ndimbal ak tawféex li wax ne rek ay tànkam tey du woon sax lii ñëw toog di wax waaye dafa fekk ne bokk na ci biir liggéeyu tubaa ca kanam mooy fexe ba lépp loo xam ne dëkk bi aje woon na ko ak ñi dëkk ci dëkk bi ñu mën leen caa taxawu te li nu tax a daje fii tey bokk ca loola te mooy fexe ba quartier yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu ndox ñu fexe ba mën leen a wutal saafara ca loola loolu waral nag euh, bi ñu tàmbaliwaatee liggéey bi yii bokk ci yi nga xam ne ñoo ci njëkk a noppi bu ñëw di xool si liggéey bi di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom la fi yabaloon te mooy jëmmi Touba ca kanam yëpp waaye jaar ci biir commission réalisation waaye ànd ko daayira yi nga xam ne mooy daayira plombier yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te lëkkaloo ak tubaa ca kanam te sëñ Cheikhouna Guèye nekk ca nekkal leen ci biir Touba ca kanam te sëñ Abdou Diagne nekk ca bopp ba looloo tax sëriñ bi ñëw fi mi ngi sant yàlla rek di sant sëriñ bi di wax ne daanaka moom jëf ji moo ko ëppal solo wax ji xam na ne daal ndox moom du lu mën a ñàkk ci barab bu mu mën a doon nit ki nga xamee ni la yëngoo ci wàllu ay fajukaay di ko yëngoo ci wàllu ay yoon noonu la ñuy yëngoo ci wàllu sécurité surtout lu mel ni éclairage public loolu moo waral itam ñi nga xam ne dañoo aajowoo ndox te quartier bi mel ni bokk na ci yi ci gën a far ndax ñi doon waxtu dëkk fi wax nañ ne diirub ñaar fukki at a ngi nii ñu koy jàmbat mënuñu koo am loolu dafa bokk ci sunub liggéey bi ñëwee fii ci quartier bi nag euh, diggante bi nga xam ne nii tëral nañ fi tiwo ndox yi 700 mètres la 700 la 1 kilomètre bu manqué 300 euh, tëral nañ fi tiwo diamètre 90 bu mag boo xam ne nii fu mu jaar ci mbedd mi euh, ku ca bëgg a branché di nga ci mën a branché. waaye yemul ci loolu waaye def nañ ci ay borne fontaine yoo xam ne pour ñëpp lay doon du ne ci biir kër kenn waaye ci mbedd mi lay ne képp koo xam ne ni amagoo possibilité mën a jënd matériel dugal ndox mi sa biir kër nga mën koy jëfandikoo ba saa yoo mënee wut ndox dugal ko ci sa biir kër ci loolu la ñuy wax ne nag borne yooyu kon nañ ko sàmm bu baax ñun ñëpp mu bañ a tudd am yàqum ndox wala ñu bañ koo seetaan robine ba foire ñu seetaan ko muy xelleeku ndax ci mbedd mi la wala kenn moomu ko xakay ah kenn moom na ko yéene ko moom kon na ngeen ko sàmm bu baax te fonk ko sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñëwu fi woon sax ngir toog wala di fi yëkkati kàddu waaye dafa ñëw gis ne teeral ngeen ko ngir mu war a wàcc toog te bëgguloo tas seen yaakaar waaye da doon dem ci terrain bi rek di xool si liggéey bi ba xam naka lañ ko liggéeyee sant na ci nag gërëm na ci bu baax mu ngi leen di ñaanal yàlla mu dolli leen dimbal ak tawféex ci barkeb sëriñ ba lu nu yéene ci lu baax rek nu mane ko nan ko bëggee ci barkeb sëriñ Tuubaa te daje cee ngërëmul sëriñ bi. feeg seeni ñaar téeméer dakkul nag Touba ca kanam du deñ taxaw ci yittey dëkk bi fii ak seeni ñaari téeméer ci gafag ak ca kanam kenn du leen mënal ba di leen sañal kudul Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasuul ñaar téeméeri sëriñ Bamba yii moo ñu gënal miliyaaru keneen ku mu mën a doon mbokk kon ay ca mburit yitte kese la nii rekk la bëri na quartier yoo xam ne yitte woon nañ ndox bëri na quartier yoo xam ne ña ngay seen ndox mi mën mënuñ cee jot naka jekk ba Touba ca kanam sosoo ba léegi mu ngi ciy dox ay jéego Touba ca kanam laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam ñàkk cee bokk wóorul de jërë jëfati sëriñ Bamba bi hurmatil Mustafa il muqarrabi walaali wasabi wasabi judliya bi taxdimi wa tasdiqi bi hurmatil muqaddimi siddiqi waliya jur wa tawfiqi bi hurmatil muwafaqin faaruqi وليا سعادة الدارين بأخ عثمان في النورين